la tax ak la mu jur parce que fekk daaju ñu wax ci fofu rek ñu bëri ndaysan dañuy rir parce que olof yaa dafa ne lu yëngu lu nekk le ko yëngal moko ko ëpp doole donc moom la tubaab di il peut il peut pas y avoir d'effet sans cause parce que cause yi ñoy indi effet yi te ñu bëree bëri nekk Sénégal dañ nekk di waxtaan ay effet mais dañoo bàyyi cause bi manam dañ nekk di waxtan ci effet yi mais dañu jël cause bi ak kawaral effet yi ñu tegee ko à côté di juger ay effet donc lolu ça pose problème mais il faut que ñu dimbali sénégalais yi fecc lënt-lënt bobu pour ñom ñu mëna comprendre mo waral le thème mon peuple a décidé de tourner le dos à la vérité mu melni ni wax ak ki nga xamni ni oustaz la muy Maodo fay muy Aliou Sall muy assatis yi jot a wax ci cas bi danaa leen dellowaat ci benn delluwaay tay muy euh, ñi nga xam ni ñooy politiciens yi dugg ci biir waxtaan danañ leen indiwaat daajal leen benn bank boo xam ni dañ ci war a mën a topp déggu dëgg kenn ku nekk moo tax ñuy ñuy faram fàcce wax ji tuddee mon peuple a décidé de tourner le dos donc yow mi a un bir kër ñu yag nous wax ci effet yi Manam la mu jur Dañ la wax tay lan Nous waral mbir mi ñu war ñu bëgg waxtane parce que dafa am solo bu Nous ni fait na ci ñom Maodo Fay. dama bëgg sénégalais yi bu ñuy Nous ñuy poser wala ay question ñu laaj seen xel ñu d'accord Maodo Faye mi ngi àttee Adji Sarr mi ngi jàppale Ousmane Sonko mais laaj leen Maodo Faye ci gis-gisu diine laaj leen Maodo Faye ci alquran lan moo waral ñu bàyyi lépp dem ñoom directement ci hadisul ifki wala xissa yonent yàlla yusufa pourtant tëb nañu li nga xam ni mooy ku lu kuy wax ci suite beauté li nga war a njëkk décrier bu nekkee nitu diine nga mooy ana góor ak wéet ak jigéen ana góor ak wéet ak jigéen parce que cause bi li mujj mooy effet bi effet bi nag li ko jur mooy cause ba maanaam mooy ana góor di wéet ak jigéen parce que kat Maodo Faye ak ñoom Aliou dañu war a xam moo jàngal senegal yi ne leen parce que lii lu jur mooy ñoom ñëpp. d'une manière implicite ça ñu yëg ko wala ñàkkoo dagal daganal nañu góoru wéet ak jigen ci néeg ñu tëj ko taal ay sondeel daganal nañ ko parce que lolu mo indi effet bi nga xamni mo ñu jural 14 personnes dee ci donc cause islam ba muy sangara tere sàngara dafa ne sangara mooy umul habaith mooy ndeyu bakari pourquoi ndayu bàkkaar yi parce que ki màndi mën na rey ki màndi mën na jël lim moomul ki màndi mën na def nangam mën na def nangam mën na dem sax ba sëyeeg way juram wala mu sëyeeg doomam moo tax sallallahu alayhi wa sallam nañu mooy ummul xabaa'is donc maintenant moo tax yàlla nañu inna innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaan sàngaraak kàrtak yu demee noonu rijis maanaam sobe la min amali sheytaan إنما يريد الشيطان أن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر فهل أنتم منتهون loolu la yàlla wax seytaane li mu bëgg innamaa yuriidu seytaan seytaane bëggul lu dul mu saxal an yuqia baynakumul adaawa maanaam noonoo wal baxdaa ak mbañeel baynakum seen diggante fa hal antum muntahun ndax du ngeen bàyyi sàngara donc cause boobu yàlla tax manam effet yi moy mu dugal al al xada maanaam li al baynakum al adawata mu dugal sen digal adawa wal barda manam mu dugal sen digante nono ak mbañeel donc cause bobu non lan mo wara tax duñ am mbañeel na mo wara duñ am nono yalla ne soli len sangara fa hal antum muntahun bayi len ko donc pour ñu éviter effet yi yalla dafa ñew ak ñun ci bàñu soli cause bi ñu soli ñu soli cause bi ben ñaar bi mooy cest ci góor di wéet ak jigéen yàlla mi bind jigéen moom jigéen ba cause ba doon tax ci biir aljanna mu dugal suñu yaay xawaa ci biir aljanna wu teg aadama ne ko fii doo fi mar doo fi xiif doo fi rafle loolu la ko wax laa tajwaa fiihaa wala taxshaa su ma jum loolu la ko wax dafa am soo taaxa donc interdit bi yàlla interdire benn cause mooy tax maintenant benn cause mooy indi effet nga wàcc suuf xiif wàcc suuf mar wàcc suuf rafle mooy garab gii bul ko laal donc laal ga moo waral yàlla subhanahu wa taala wàcce aadama wàcce iblis wàcce leen ñoom ñëpp ñu ñëw ci kaw suuf pour pourquoi parce que cose ba tax cause ba yàlla doon daw ba tax mu ne leen di ngeen euh, maanaam di nga fi nekk doo xiif doo marle doo rafle mais nag fii doo fi xiif fii àjjana doo fi xiif duggal nga dund nu mu la neexee lekkal nu mu la neexee naanal nu la ne ko nag waaye garab gii bul ko laal donc ak loo am am liberté bi loo am am yàlla may la loolu yëpp dafa am benn mbir boo xam boo ko laalee da jural ban effet effet ban la ko jural mooy yàlla jël leen ñoom ñëpp tàbbal ci kaw suuf donc cause ba moo ëpp solo donc ci njaaloo it mu wax la ni bul bu bu leen jege bu leen jege wala taqrabul fawaxisha ma zahara minha wa ma batan bu leen jege maanaam bu leen jege ñaawteef mu feeñ ak mu nëbb njaaloo nag moom yàlla dafa ne subhanahu wa taala wala taqrabu bu leen ko jege ndax lan mbon la ndax lan ci caay caay la ndax lan lim la mën a jural moo bari donc oustaz Maodo Faye au lieu que man dama jàpp ne au lieu que oustaz Maodo nekk di wax ci effet bi nekk di wax ci Ousmane Sonko nekk di wax ci Adji Raby man dama jàpp ne Ousmane euh, Maodo Maodo fay ak ñu mel ni Maodo Faye li ñu waroon njëkk def moom mooy ñu protéger li nga xamante ni moom mooy ay tere alquran salaa salaam waxoon na ni buur bu nekk buur bu nekk alaa ala inna li kulli malikin xima buur bu nekk ndax buur bu nekk amul frontière ñu ne ko ankay mu ne frontière yàlla yi mooy yu araam yi frontière yu yàlla yi mooy yu araam yi parce que dafa ne lu araam dagan leer na lu dagan leer na seen diggante am na mbir yu lënt loolu la wax li xaraam leer na li dagan leer na seen diggante ñoom am na mbir yu lënt ñu ne ko salaa salaam mbir yu lënt yooyu al mutashaabihaat maanaam nuñ ko mën a xàmmee mu ne kenn ku ne ci yéen bu bañee tàbbi ci li nga xamante mooy mutashaab yi mu ne bu bañee tàbbi ci li nga xam mooy yu xaraam yi li nga xam ne wóoru ko leeru ko donc cause bi tax ngay tàbbi ci li nga xamante mooy mutashaabihaat yi te cause boobu noonu mooy waral tey jii nii maanaam nga effet yooyu noonu effet yooyu mooy lan nga dem dugg ci li nga xam waroo cee dugg donc Ousmane Sonko ban cause la def ba mu jural ko ban effet lefe mooy la plainte lefe mooy l'accusation de viol l'effet mooy ce qui en est suivi maanaam li mu jur mooy ñu ti tu tuumaal la viol li mu jur mooy maanaam nangam ba boo demee ci Yuusufa bañ leen attee ba pare dañ leen daw si was eh, nu mu tudd sax Yuusufa arid an haza wax fir li euh, euh, Yuusufa arid an haza wax wastaghfir li zanbiki Yuusufa solil ñii parce que li tax loolu Yuusufa mu dal ko parce que dafa nek ci biir jigen ni góor raxu leen nattu ga dal ko motax bañu atté ba xamni ne sax mo am yoon waji atté da ko ne yusufa arid an haza solil lii waaye nag wastaxfir li zanbiki wastaghfir li zanbiki yow ko jigen ki tuubal sa bàkkaar donc ebe bi waral Ousmane Sonko bayyi ay jabaram cause bobu non cause bi tax Ousmane Sonko wacc ay soxnam ko bi tax Ousmane Sonko nangu jigen laal ko yeen daganal ngeen ko yéen Maodo fay daganal ngeen ko parce que gisuma kenn kenn kenn ci yeen ku taxaw ci au nom du Coran au nom de la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam sallam au nom des préceptes qui qui fondent la jurisprudence même de l'islam on n'a pas vu quelqu'un kenn ku jog ne ko Ousmane Sonko li nga def dafa haram mutlaqan kon la fa dal yaw la la fa dal yow la parce que cause bobu bu fekkee ne atte wuñ cause bi mënuñoo acte effet bi parce que cause bi moo ñu leer effet bi leeruñu hmm. cause bi daf ñoo leer nañ mais effet bi moom leeruñu cause bi leer mooy Ousmane Sonko nee na moo dem Ousmane Sonko nee na moo dem ñu faj ko. kan moo ko faj ñu ne Adji Sarr ak Aïssata Ba ñaari jigéen tiim benn góor loolu mooy cause bi effet bi maintenant mooy ñu porté la plainte jiiñ dafa fa njaaloo effet boobu moo daloon yonent yàlla Yusufa dañ koo atte fa saasa fa saasa in kaana xamisuhu qudda min duburin fa sadaqa wa huwa kaasi alkaasibin ay maanaam maanaam aaya ngeen baal ma des fois aaya moom day day tëb ci bopp bi mais dañ ko ne bu fekkee ni xamis bi xotteeku na ci ginnaaw donc Yusufa moo am dëgg ndaw si moo tooñ bu fekkee ni xamiisuhu xudda min xubulin bu fekkee ni yusufa chemisam xotteeku na ci kanam donc moom yusufa moo tooñ ndaw si moo am dëgg kon loolu atte atte nañu donc loolu mooy lan mooy que ginnaaw ba dem nga ba foofu xool ndax yow ku baax nga yow yusufa xool ndax ku ku ku yiw nga xol ndax bi na nga non xol ñu ndax ku baax nga xol ndax yar yar bu baax am parce que bi donc loolu yëpp xooluñu ko mais dañ ko atté fa saasa bu chemise vous ko ci ginnaaw moom ndaw si moo tooñ yusufa moo am dëgg bu chemise bi ko ci kanam moom yusufa ne yusufa arid an parce que c'est la cause d'avoir accepté d'être l'invité de ces femmes beaucoup de gens d'avoir été accusé di li nga xamante moom mooy yàqataan xaw ma ndax dégg ngeen li ma waxam donc maintenant mënoo toog di àtte ay effet sans pour autant s'attaquer aux causes aux ak moi, toujours tu si on fait une enquête criminelle on va rechercher le mobile du crime lan moo tax def mobile yooyu mën nga dem bañ il y a eu une circonstance une circonstance atténuante amna lo xamni motax mom mu def ko la tax la cause bi tax mu rey mooy dafa tit def légitime défense c'est la cause donc cette cause va adoucir l'effet d'avoir tué quelqu'un si pendant une bagarre quelqu'un lève un couteau yow tayu ko nga dóor mu dee donc dans ce cas la cause bi tax tey jii nga dóor mu dee mooy cause bi da doon da doon agressé donc day adoucir li nga xam moom mooy rey nga nit bokkul nag ak nga jóg dox dem fekk nit ki toog dara dal la fa dañ la naan yow lan moo tax nga jóge sa kër dem ba kër jàmbur d'abord y a une violation de domicile kon mënatoo am li nga xamante ni moom mooy circonstance atténuante donc loolu il faut que. suñu assise yi ak suñu ñi xam dañuy toog plateau di wax ñu ciy bàyyi xel c'est-à-dire que c'est pas seulement l'acte d'accusation qui est important mais il faut se focaliser ci li nga mooy la cause la cause principale mooy que ni Ousmane Sonko dafa bàyyeekoo këram dafa bàyyeekoo këram bàyyi ay jabaram bàyyi ay gàddikooram dem dugg foo xamante peu recommandé ma bëgg aussi ñu wax ñu laaj Maodo Faye ak Alioune Sall ak nangam sangam ndax ñoom seen ndigg bu doon miti daañ dem bërëb bu mel ni Beauté bu fekkee déedéet lan moo ko waral parce que ni ñu bëggee travestir les faits moom moo yéeme moo doy waar ni ñu ko bëgg travestir moo yéeme moo doy waar donc loolu dama ko bëggoon wax ci li nga xamante ni moom mooy kaawu aïma yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Euh, nekk ci rajo yeeg télé yi ne di di lëmbe ak di wax loo xamante ni dañ koy wax uniquement pour lu neex pour lu neex Ousmane Sonko. su ma paree ci ñoom Maodo ak consort ma dem léegi maintenant ci yenn journalistes yi nga xam ni euh, ñu mel ni ñoom Salim Gueye ñu mel ni ñu mel ni ñu mel ni demee noonu parce que man dama jàpp ne mbir bu fekkee ni da nga sérieux nga koy jàngat da nga koy jàngat ci ñaari boor man mosuma dégg Salim Gueye toog ni Sonko

ngeen dégg Ousmane Sonko di saaga ay institution ngeen tàcc ko ngeen dégg Ousmane Sonko di saaga ay président de la République ak ay président institution ngeen jóg tàcc ko donc loolu yëpp réunir maanaam lan ça veut dire quoi mooy que ni suñu manière d'analyser déjà dafa tronqué ba pare mooy que dañuy analyser ak benn benn côté analyser wuñ ak ñaari côté or qu'est-ce qu'on peut reprocher à Adji Raby dem bëgg ñu jël ñu def ñu def euh, ñu dresser kenn ku nekk personnalité bi ñu xool ñom ñaar kenn ku nekk Adji Sarr dafa tok fim tok toog di xaar ñom dañuy tok di xaar seeni client ñom wa suite Beauté parce que pour nga dugg suite Beauté da ngay def da ngay am rendez-vous wala ñu xam la donc ñoom dañoo toog di xaar client donc ku lu ko génn ku lu ko jógee ci biti ñëw ci biir client nga maanaam client nga loolu benn la ñaareel bi mooy amul kenn ku ma dégg ci ñoom mu waxtaan ne ko Ousmane Sonko wax dëgg yàlla Sweet Beauté du pour faju kenn waxu ko chroniqueur yi ngeen dégg yépp et pourtant yéen kenn ku nekk ku toog ci yéen leer na ko ne Ndeye Khady Ndiaye mi ngeen di dégg leer na ko ne Adji Sarr mi ngeen di dégg jànguñu école pour war a nekk ay médecin wala ay docteur donc ñooñu ndax réew mi am na lu mu leen war a wax maanaam koo xam ni jàngoo école amoo xam-xam wutoo délégué de quartier wutoo mairie wutoo député wutoo dara nga toog di xaar ku ñëw futteeku nga maase ko ndax koku war nañ ko yedd ci kaw magam jëm bu am ay doom am ay jabar nekk politicien nekk député nekk président parti di wute jiite réew mi bu ñoo yedd kan lañ war yedd bu nekkee dëgg rek moo ñuy wax bu rek ñuy wax mi daa mel nii nga ne am na magam jëm bu fekk bu am deux ans wala trois ans muy saw ci mbedd mu mbéj la muy saw ça se comprend parce que xelam tonn wul ci loo xamante ni mënees na ko àtte ci loolu mais yow mi ko mbéj yow mi ko dóor mënees na la yedd parce que nag du noonu la ñuy yare Ousmane Sonko 1974 la juddu nee na jàng na yee ba am maîtriser ma ngi wut doctorat nee na candidat élection législative nek député candidat élection présidentielle génn troisième yor parti bo xamante ni ba muy tàmbali dafa tok ñep di dégg mu tuddee ko solution à l'origine du mal un système donc ki bind livre xelam mat na bu ciow lu mel nii amee bu ñuy yedd la bu ñu waree yedd kan lañ wara yedd aji Sarr lañ wara yedd wala Ousmane Sonko lañ war a yedd xattaa bu Adji Sarr nekkoon saga te du moom xattaa bu Adji Sarr nekkoon saga ma xattaa bu doon jaay boppam ndax baal ngeen wala ngeen may Ousmane Sonko mi war a jiite ëllëg Sénégal mu tëju ak caga waxuma luñ fa def nañ bàyyi luñ fa def nañ ko bàyyi ndax yàlla na yéen sénégalais yi muy dig kii bëgg ne dafa war a jiite Sénégal kii bëgg ne moom moom moo gën a mat Sénégal kii jiite parti boo xam ne troisième la jël ci réew mi kii ji maanaam nekk assemblée nationale kii jàng ba am xam-xam am maîtrise xale bu ndaw bu am 21 ans jàngul école soriwul ci école amul xam-xam amul dara ngeen ne kii caga la d'accord nañu def leen ko caga

ñu bëtt ñu fat suñuy bëtt fat suñuy xel fat suñuy bakkan ubbi suñu làmmiñ loolu moo ni dal ñu sénégal parce que suma ma toogee ma dégg leen ñu naan aji saa daa war a génne preuve aji saa war a génne preuve aji saa la première preuve bi gën a leer ousmane sonko wax na leen ko mooy dem na suite beauté c'est la preuve boo xam ne leer na ne ñu dem na la deuxième preuve bon c'est les faits nañ ko jàppee faits mais man damay wax ci ci dama koy waxe pour ngeen comprendre ci olaf tejuna ak ajira bi sa lolou leer nañu tejuna fa leer nañu maintenant lan mo waral aji sa ne su mekuna us aisha ta ban su mekuna na ousmane duma tontu ci lolou yeen yeddu len ko mais da ngeen yedd aji parce que ne aji génnul preuve en parlant de preuve mo wax len ni bu fekkee ni dangeen ngeen di xaar preuve fexe leen ba dégg naa Baye Mbaye MC woo nañ ko mardi bu fekkee gën ngeen ay audio Baye Mbaye MC bu nekkee dem na ba ci juge d'instruction ngir yàlla rëkk bu aju Sarr génnee audio wala vidéo wala lu mënti doon bu la ne dañ koo monté parce que tamit nag Baye Mbaye MC nee na am na ay audio nee nañ ko woo mu yóbbu ko juge bi woo na ko pour mu yóbbu ojo yi. ñun ñi ngi toog di déglu kon yéen ñëpp d'accord ngeen ni yéen waa Pastef yéen ñii défendre soo Sonko d'accord ngeen ni ay audio Baye Mbaye MC audio yu original la fexe leen ba nag Adji Sarr bu génnee yosam bu Adji Sarr bu génnee yosam wala mu génne ay vidéo fexe leen ba fexe leen ba incha allahu bu leen wax dañ koo monté parce que nag nit mën na woon nit. nit damay damay daan daa am ko ma bëgg bàyyiloo xel ne mën nga yor audio nit mu yor sa audio mën nga ay message nit mu yor sa message waaye yow mi nga xam ne nee nga da yóbbu ay audio bu nekkee ni nag mësoon nga yónnee ay audio di doxaan xale ak di ko may alal ak di ko may ay terrain wala ay kër wala ay tool jàppal ni xale boobu kat mën na yor loolu ay wax day leer de bu nekkee audio pour audio la nag dans ce cas sénégalais dañ xam kenn ku nekk lan moo waral ngay def yenn yi waxuma kenn nag waxuma kenn je parle à personne mais dama ne ne nit ñi jàpp ne bu mag magam jëmb bu taxawee situation am ab xale nekk ci naqar di ko dund nekk ci naqar di ko dund nga koy jéem a voilà mën nga envoyé audio mën nga envoyé audio mën nga envoyé dinaa la may nangam dinaa la may nangam dinaa la may tool dinaa la may kër dinaa la may lii dinaa la may lii jàppal audio yi nga yor mais bu jàpp moom audio yi mu yor ay wax day leer pour me revenir maintenant ci cause yi ak effet yi ka nag mbaboor mi moom dañ koo jël tegee ko nee ca mbaboor bi kam dal moom la ñuy jël teg ko ci pénc bi di ko yenn maanaam moo tax ma ne leen même bu nekkee ne Adji Sarr caga la même bu ngeen waxé né Adji Sarr tagal mais Adji Sarr demul ponti Adji Sarr demul ponti dé Adji Sarr demul ponti demul xawma xuru lan fi ñu gaay doon dem non xuru mbukki Adji Sarr suite bo la toog Ousmane fa dem kon Ousmane mo fekk tagal yeen ngeen war a tagal bi bayyi ki fekk tagal bi cest man ban ban réew lañ nekk quoi ça dit dire yéen a ngi taxaw ngeen Sénégal gi yëpp dañuy yedd caga bi bàyyi waa ji fekki woon caga bi am ñaari jabar oustaz yi laay waxal toujours yéen oustaz yi maanaam yéen a ngi yedd Adji Sarr Maodo Faye moo ci gën a rakkaaju présentement wallaahi azim moo ci gën a rakkaaju présentement moo tax bu tiimee alxuraan dafa ruus say ñaar rongoñ toq ci téere bi parce que yaa ngi tooñ borom bi subhanahu wa parce que lu tax ma ne la yaa ngi tooñ borom bi subhanahu parce que gis nga lu ne leen nga war ko wax nga noppé ko ngir sa bànneexu bakkan ak bànneexu bakkan ki nga andal di wax ak mom mais man dama mënul concevoir que ni effet bi tax ñi wax effet muy ajiraa bi sa ngeen ne tagala mawla Fay wara tok toog di xas aji sa mi caga bi bàyyi Ousmane Sonko bi fekk won caga bi yaa wax waxante deug donc lolu il faut que sénégalais yi ci xel mbiri da daa am lu ko yëngal am li yëngu li yëngu nak la ko yëngal moo ko donc cause moi am pour que effet am cause bi mooy dem bu dem woon du am effet plainte du am effet mbaboor donc il faut que mu clair fi sama wax que nous nous bruit fort fort fort lu wax bëri bëri bëri man benn mbir moo ma intéressé li ma ma bëgg leen wax ñëpp ci logique kenn wala kenn bu leen kenn divertir kenn ne nag yaa sa bopp ma nga def plateau bu la neex wax la neex loolu man wu mais ce qu'il faut retenir moi, la waral avocat journaliste numéro un numéro 2, tout le monde bouge ak avocat tout le monde bouge

bañ ma wooyee jàkkaarloo man ak moom lañ invité jàkkaarloo il a fui ñu woo Dame Mbodj Dame Mbodj a fui donc ñaar ñooñu ma dama jàpp ne luñ mën a wax ci man jëw la donc loolu du ma ci attaché fulaak fayda bu bëri donc loolu moom amul moom amul ma benn njëriñ wax dëgg yàlla li ma amal njëriñ mooy la déconstruction des mensonges la déconstruction des mensonges mooy lu ngeen lu ngeen nas midi di ko nas ci ay fel ki nga xam ne moo leen jiite. muy fenaakoon gi muy Ousmane Sonko lu mu nas ci fen man baa jaxate fii laay toog di ko dindi ngir sénégalais yi naa nag ah la vie c'est comme ça c'est-à-dire que adduna bi noonu la mel fu yàlla fu yàlla mës a gisee ni ay fenkat taxaw nañu rek yàlla indi na koo xam dafay rétablir la vérité incha allahu taala je ne sais pas moi am naa ci sama sama ku mel ni Omar Wade gis naa ko démb li mu def. ñom sommes la ni fi ñom Bëgg fi tout le monde ñepp ngi wax ñepp ngi wax ñom ngi wax donc ci li nga xamanteni muy Françoise ak muy Mati muy euh, tout le monde est en train de parler ñepp yalla mo ñu yalla mo len tagatal Sénégal ñu wat li nga xamanteni ni sur la place publique donc dafa am solo muy grand makoy koy sant bu baax di bu baaxa baax donc lolu dafa am solo donc il faut que les sénégalais ñuy def des bonnes des bonnes analyses pour me récapituler euh, adama suñu mam adama alayhi salam la tax yàlla ne ihbitu minha jamian ihbitu minha jamian la ko indi cause ba moy lamu mu tere yalla ca kaw mo tax cause ihbitu minha jamian donc adama dañ ko téré mu def mu am effet moo indi fi ci kaw suuf dunia fi la cause c'est dafa braver l'interdiction de Dieu euh, subhanahu wa taala donc a moko donc l'effet de notre de arrivée sur cette terre c'est la cause bi nga xam adama teggi mi nga xam mooy ndigalu borom bi subhanahu wa taala donc effet bi maanaam euh, li yëngu donc mooy ñu ñëw ci kaw suuf loolu benn la ñaareel bi mooy yonent yàlla yusufa cause ba mooy yàlla dafa bindul góor ak jigéen pour ñu daje ci benn ci benn ci ci benn néeg ba ko yonent yàlla yusufa defee immédiatement effet ba mooy dañ ko fa jiiñ dañ ko fa jiiñ motax bañ ko atté dañ ko né yusuf a'rid an haza kenen ko ñu ko wasta fir li zambiki yusufa may tu lu mel ni kenen ko ñu ko dafa bay sol manam tuubal say bakkar benen cause bi nga xamanteni moy nanum sangara yeen sa sa moy ummul habaif moy ndayu ñaawteef fi donc ñaawteef bi kay def boko defé c'est pas tout simplement bo nané sangara ba tab ci lolu cause ba moy xoti nga li nga xam moy téré yalla nan nga sangara effet bi c'est immédiat مرح يعلن إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر فهل أنتم منتهون فوفو تابي يعني كو بوزي كوم كيشون مي كيشون لا بو خامتيني فعل أمر الله دانك مانام أمر الله مانام موي فهل أنتم منتهون دا فا ملني كوم غاي اتي نيت با باغا كو تك كو فين نكو ندخ مونو يام دونك لول ديغال لا بور مو يام يالا نينا شيطان بغول لودو دوخال سين ديغال نونو اك مبانيال تي نان سانغار اك كارت boo xoolee fu ñuy carte boo xoolee fu ñuy naane sàngara boo maytuwul coow moo fay ëpp ak xeex ak def lo xamanteni waro ko def mo tax yonent bi saa sallam ne moy umul khaba'is donc cause nan naan sàngara mooy jur effet def musiba comme liñu woyé légitime défense wala nangam sàngam tey jii nii ci wal waxna naa ko ci wal criminologie tey jii par exemple bu nit rayé nit ñu xol cause bi tax mu ray dañ ne cause ba lu waroon mën nek la ñu ne donc kii am na circonstance atténuante wala ki amna légitime défense mais bu nekkee nag yow cause bi dafa tax yow yaa dem fekk ji ji dem jam ko paaka cause bi tax nga def loolu mooy waral yóbbu la assise atte la atte crime donc maintenant cause bi tax Ousmane Sonko jugee këram dem dugg suite boote wéet ak ay jigéen loolu mooy la cause la plainte maintenant n'est que l'effet yo si y aurait pas la cause y aura pas d'effet maanaam bu cause bi amul woon maanaam bu Sonko demul woon bu Sonko wéetul woon bu Sonko nangul woon jigéen laal ko dans ce effet bii du am donc loolu il faut mu leer donc sëriñ bu ko ci nawit bay wàcc sa escalier di wéq sa tànk boo ci daanoo ba damm wala nga dem ci leneen man ma jàpp ne mag bu ciy roy Sonko ci loolu wala ndaw bu ciy roy Sonko ci loolu man gëm naa ni boo wéetoon ak jigéen def la Sonko def nañ maytu billaahi wa kitaabi parce que kuy roy kàccoor ci mbon da nga ko ñaara am parce que mbir mi mooy golo tool la golo ci taati garab yéeg na ba wàcc mbaa muy waaj a yéeg golo moom ci taatu garab ñaar yooyu la Ousmane Sonko biir suite boobu ñaar yooyu moo ko fa dal yéeg na ba wàcc mbaa muy waaj a yéeg donc loolu moo ko fa dal donc man dama jàpp ne mag moo xamante ni tamit nag yaa ngi roy Ousmane Sonko ca na muy doxee na muy defee na muy waxee donc yow fa la dëgg ne yow naw nga waaj ci wéet bi mu wéet ak jigéen naw nga waaj ci tëju bi mu tëju jigéen naw nga ci lim nangu jigéen di laal di laal loxo waxuma laa ne ñu la yow sëriñ nga. waxuma laa yow borom xam-xam nga waxuma laa yow ku nit ñi dégg nga donc parce que yonent bi saa salaam daf ñu wax lu leer man tashabaha bi xaw qawmin fa huwa minhum donc képp koo xam ne yaa ngi niru nirulu ab xeet ci ñoom nga bokk donc nit bu fekkee dafa def mbon li war njëkk ci doomu aadama yonent bi saa salaam ñaata yoon la jàjj ay saaba caw ay yari farata ñaata yoon ñaata yoon est-ce que ça veut dire loolu Euh, parce que tout simplement deug mom deug dara du ko de ab serigne sa wala ab muqaddam wala la première réaction sa talibé moy bu li ngay a def ngay aspect politique moy nga xol aspect borom bi subhanahu wa taala ki yan yan yan orma la xoti yan orma diina la xoti orma bi jitu moy mu taxaw mu wàcc orma diine ñëpp di ko déglu mu ne ab oustaz moo ma ne bu fekkee ni massage bi may def nii jigéen moo fa nekk war naa mën a massé wu kenn kenn jàjjiwu ko ku may dégg naa daal yenn yenn asatis yi ak yenn yenn dégg naa ci yenn xutba Tuubaa yi yenn xutba ak yenn xutba gaa yi wax ci gaa yi wax ci mais dégguma Maodo Faye ak ñoom ak ñu sàll ak yi demee noonu dal jëf ji comme ni ñu ko war a dalee parce que boobu Sonko mi ngi leen di nax di leen dugal seen bopp ne la ma def ci charia lu charia nangu la donc foofu xotti na orma charia d'abord ba pare mooy fenal na yàlla fenaluk yonenteem salaahu salaam moom ak ki ko wax ak ku mu mën a doon ci àdduna ak ku mu mën a doon donte ne bu nekkee ndax ustaana boo xam ne dafa bàyyeekoo ci asamaan ñëw ci kaw suuf ne ko Ousmane Sonko am nga sañ-sañ dem abira aji raabi Sarr ak Aïssata Ba tiim la kooku moom xam wallaahi azim fen na fenal na yàlla fenal na yonent bi salaam loolooy xotti bi njëkk xotti orma ñaanu xotti bi mu xotti ormadine te dégguma kenn wax ko du Maodo Faye du ñoom Aliou Sall du kenn du kenn du kenn laa wax nag koo xam ne wax nga ko ne Ousmane Sonko ndax xam nga ne dafa araam mut daqan góor tëju ci biir di tëju ci biir néeg ñaari jigéen séq ko ñu fay lamp yi taal ay sondeel ndax loolu ndax loolu charia ndax loolu charia du luñ waroon taxaw Maodo Faye ndax loolu charia du loo waroon taxaw parce que bu la nit ñi xamee xamé wuñ la ci Ousmane Sonko xamé wuñ la ci nagam sangam waye alquran mo yaatu yàlla mo yaatu da ngay dem ba alquran siw lola li ngay ñëk def moy joggi alquran billahi alkitab jëndé ko alal jëndé ko jëndé ko siw ak leneen lolu mo dal ñom mawdo fay dañu dem ba joggi alquran jëndé ko ay ay vue jëndé ko ay lu siw joggi ay atta yàlla subhanahu wa taala joggi ay atta yunus sallallahu alayhi wasallam taxaw ci taxaw ci cadre politique di dal ab tiaga bo xamni na ngay bàyyi tiaga di ko fekki woon fa maa li haulaa il qawm la yakadu yafqahuna haditha donc man japp naa ni li waro njëkk def en tant que ay nitu diine en tant que ay nitu sharia en tant que ay nit yo xamni nit ñi dañu ni mo ñu ne ko dem gi nga dem suite bodé bàkkaar la tuub ko teju bi nga teju bàkkaar la tuub ko musibala la des nag ñu bàyyi ñay àtte ñu àtte parce que dafa am ko ne dafa maa tooñ loolu la parce que bu tëjuwul woon demul woon wéetul woon kenn du ko jiiñ lu nit mënta seete c'est parce que ñoom ñaar rek a fa nekkoon c'est parce que dañoo tëju woon ci biir c'est parce que ñoom ñaar yàlla moo leen wéttali te yàlla yoomal xiyaam lay atte c'est loolu moo war a tax ñu bàyyi nit parce que faut nit ak donc l'ol, il faut que soyons clair donc on ne peut pas euh, s'arrêter sur des sur des effets tout en banalisant la cause c'est pas possible c'est pas possible et la cause Ousmane Sonko refuse de nous en parler Sonko ba nangou nanguwuñu wax ci cause bi ba buñ ko ci laajee mu ne duma ci tontu parce que d'ici quelques années d'ici manam lolu avant la maanaam du ma sama der parce que fii quelques mois dama war nekk président de la République ngeen jàppale ko ci loolu donc euh ni lañ bëggoon partager ak yéen parce que dama dégg de Maodo fay melni ku rakkaaju melni ku rakkaaju melni ni mbote buñ pikiir muy mbel mbel rek ci rajo yi xaw yi mais ça va, Il faut en un moment donné qu'on qu la fin de la récréation. Qu'on lui dise que Maodo, sa place, ak la nga waron wax Maodo fay waxoko. La waron doxal ci nit diiné incriminer li les causes parce que Yalla, d'habitude les les effets da koy les causes madame da prévoir ci causes da prévoir causes parce que day fekk en amont leeral na cause yi ba nuppi leeral na ko ba nuppi donc ku bañ a tàbbi maintenant ku bañ a tàbbi maintenant ci yi nga xamante ni moom mooy mutashaabihaat yi da ngay sori yi lënt yi da ngeen di sori dèjà moom la yàlla di wax naan nu mu tudd sax fa ama alladina fi qulubihim zaygun fa yata fa yattabiuna ma tashabaha minhu ibtigaa al fitna wa ibtigaa ta'wil wa ma yaalamu tawilahu illa allah la yàlla wax ay maanaam ay ba ma góor waray laal wala jigéen war ma laal wala góor war ma def lii wala jigéen war ma def lii ma laaj sama ustaaz sama nangam sàngam yeneen ustaaz topp ci nag mooy ayatun bayinatun hunna umul kitab wa uxaru mutashabihat fa ama allazina fi qulubihim zaygun fa yattabiuna ma tashabaha minhu ibtigaa al fitna wa ibtigaa tawili wa ma yalamu tawilahu illa allah yàlla rek moo xam tawil ba donc moo tax yàlla dafay dessiner ay mbir yu leer ba pare def ay frontières moo tax salaa salaam nañu ku bañ a tàbbi ci mutashaabi yi na nga bañ a jege frontières yi mu ne ndax xam xanaa du buur bu nekk am na frontière ñu ne ko waaw mu ne frontière yu yàlla yi mooy almuhar mooy mooy nga xamante ne da ko araamal yàlla daa araamal góor jox la ko jigéen yàlla daa araamal góor di wéete jigéen yàlla daa araamal góor dina jàkk jigéen xool leen ci alquran wa qul lil muminina yaxuddu min loolu la yàlla wax min absaalihim wa yaxfasu furujahum wax ko ci jigéen ñi encore waqul lil muminaati yax muminaati yax judna min absaalihinna wa yaxfasna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wala yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna donc yàlla dafa ñàkk foofu dafa ñàkk foofu góor bul xool sëgal jigéen mu ne la bul xool sëgal yow it na nga mu na nga na nga sàmm say awra ba pare na nga na nga muur sa yaram donc yàlla ni mu defee jigéen noonu donc maintenant parce que mi ngi ñàkk c'est-à-dire il est en train de mettre les frontières frontières yi la frontières yi la amul benn kilifa diine buy booy dugg këram te jamono ji nga xamante ni jamono yu njëkk yii la ak jamono yi nga xamante actuellement suñu kilifa diine yi nga ñëw ci ëtt bi nga fekk fa jigéen ci daara yi doo fa gis jigéen na jigéen ña nga nekk fañ war a nekk góor ñi nekk fañ war a nekk parce que loolu mooy mbir mi Ousmane daa waroon toog ci ay jabaram wala mu ànd ak ay jabaram Adji Sarr tamit toog ci ay waajuram wala mu nekk ci clinique wala hôpital foofu kenn mënu fa jiiñ dara kenn mais ginnaaw ba salon de beauté la rafet neex ginnaaw ba néeg la salon de massage salle de massage ginnaaw ba kawlal la ginnaaw ba futteeku da cee am donc xurumaat yi maanaam yu xaraam yi dañ leen jéggee jéggee jéggi jéggi ba ñëw tàbbi ci l' accusation de viol ñu war a nekk taxaw ci accusation en tant que nitu diine fekk bàyyi nañ li nga xamante moom mooy les causes les causes yi jiitu dañ koo bàyyi topp ci effet yi ba effet yi yóbbu 14 moo tax toujours pour mu bañ a yegg foofu dafay taxaw ci li nga les causes et les causes Ousmane le principal responsable c'est lui donc su ma gisee ay Maodo Faye ay Aliou Sall ay donc ñooñu ñëpp jël ko def ko star wala def ko nangam sangam man dama demande ndax yéen ragal ngeen yàlla ndax ragal ngeen yàlla donc foo àttee caga bu jigéen àttee caga bu góor bi ko fekki woon loolu fi sama wax ndax ñun nag Sénégal mérité nañu nit ku mel noonu war ñëw dugg ci biir pale bi ne mooy jiite Sénégal nit koo xam ni yaa ngi toog te wax nañ leen fi ne juge bi dégluwul Adji Sarr Aïssata Ba ak Ndeye Khady Ndiaye kese déglu na yeneen masseurs yu jaar Sweet Beauté donc ñoom ñëpp li ñuy wax mooy Sweet Beauté Spa massage thérapeutique amu fa parce que ñoom jànguñu xam xamuñu ko kenn taxawul ne Ousmane Sonko day fen kenn ñemewu leen ko sax parce que yéen a ngi daw saaga yi loolu benn la ñaareel mooy nu tous les massages se faisaient nu yaramu neen yaramu neen taati neen ngeen bàyyi yaramu neen taati neen di dem ci di wax di wax ci leneen góor bu ne lëng lëngaaral <coughs> góor bu ne léng Maodo Faye Alioune Sall ak ñi sa topp góor bu ne léng-léngaaral na mel naka ndayam jure ay xale yu jigéen tiim ko ngeen ne loolu warul am ete saa nañu waxante dëgg ña jaar suite boote yépp nee nañu massage thérapeutique massage thérapeutique amu fa massage ba fa am mooy da nga naan dungu dungaaral góor bu mel ne dungu kooku moo ñu war a jiite ñun Sénégal ñun mérité nañ loolu kooku moo war a jiite moo war a jiite réew moo xam ni Serigne Mountakha Mbacké moo fi nekk mu war a jiite Serigne Mountakha wala jiite Serigne Babacar man Mansour wala jiite waa Yoff wala jiite waa Ceneba wala jiite waa na Baye wala jiite jàngu bi góor boo xam ne bàyyi nga sa jabar dem na dungu dungaaral ay xale vingt ans tiim la ngeen ne kooku moo war a yor Sénégal ñëpp jàpp ne dafa war a yor Sénégal ngeen ne loolu loolu dundam la c'est sa vie dundam la intéressé wuñu ndax loolu yëfi maanaam ndax loolu wax boobu wax boobu yenn na maanaa dund Ousmane Sonko la

subhanallah kooku war na jiite Sénégal kooku quartier sax quartier laa wax quartier bu fekkee dañuy waxal yàlla quartier sax waru ko def quartier parce que nag senegal war nañ seexlu loolu président boo xam ne leer na leen leen leer yéen ñi défendre Ousmane Sonko yéen ñëpp leer na leen leeru yàlla Adji Sarr ñeme gii mu ñeme nii Ousmane Sonko mooy bu nekkoon Ousmane Sonko dafa yor ban Adji Sarr foo yor bantam bi bay bëgg a dee wallaay la si fooy na band bay bëgg de dee maintenant ab imam boo xam ne band bi ngay taxawee ci minbar di xutba imam boobu bant bi ña ko fekk ci biir néegu xale bu jigéen ndax imam boobu saña taxaw ci minbar di xutba naan ittaqillaa wala kooku daa war a wàcc minbar bi li nit nga xale naan jippoo dafa war a jipp maintenant c'est la même chose maanaam ñun ndax war nañu nangu suñu président de la ñu toog muy def discours à la nation xale yu jigéen ñu ndaw taxaw naan kii de bande bi mu yor wax dëgg yàlla fooy naa ko bay bëgg a dee nii la mel ak am na léegi fii wëg tuñ bi nii la mel ak dënn bi nii la mel ak xott ni non mais subhanallah c'est-à-dire que il faut que ñu revenir sur terre kooku mu war a jiite suñuy nit yu baax ñun war a jiite suñuy nit yu baax ñun est-ce que loolu loolu yenn na maanaam c'est ça vie privée mooy ban wax vie privée mooy lan ab kuy jiite réew mënta am vie privée il doit avoir une moralité exceptionnelle une probité morale bu doy waar bu doy waar bu doy waar parce que Sénégal du ay Sénégal du Sénégal du ay du ay du Bañamule du ay du ay kii ah, du ay royaume de kii de du yooyu de Sénégal Sénégal la tudd Sénégal si Ahmad Bamba la Sénégal Cerno Fuutiwu Sénégal Sénégalu mu tudd sax Sénégalu Maba Jaxu Sénégalu ñooñu Sénégal nit yu baax yooyu noonu Alaaji Malick Si Cheikh Ahmad Bamba Bukunte Njaasaan sénégalu cheikh ci nani mamulay sénégalu ñooñu ngeen bëgg jël denk ko ko xam lenn lenn leer yalla dafa dem fu teglu dungu dungalal xalé jigen tim di foye li nga yox ko mo wara jité sénégal bo yeen ngeen war ko nang yeen oustaz ngeen wara layal lool yeen amu len gatché yeen bu ngeen timé alcorane diko jang sax war da wara tek alcorane bi parce que la ken du ko laal illa al mutahharu ken illa al mutahharu bo ne nga ci malaaka yi wala ci nit ñu baax la yamassuhu illa al mutahharun tayani tahara bi ci bi moy tahara mooy man am maanaam bi jiitu moy tahara ci bir set ci bir rus malaaka yi le tim Ousmane est ce yen yéen yéen Maodo fay wax ngeen Ousmane nako est ce ba ngay ko bi suite bodé aji saaji la tim est la ban ndax nga nga raqib ak atit ñaari malaaka yooyu tim la est ce que nga len est ce que nga ni borom bi subhanahu wa taala nga xamni dara du ko rëcc mi ngi tim nga bàyyi aana bàyyi ñëpp bàyyi sa Pastef bàyyi sa lépp nga dem cummeeku ba a dungu dungaaraw après génn du ñu lay naan dama amee nit kooku moo ñu war a jiite ñun waa Sénégal donc il faut que l'on soit plus sérieux que ça il faut que le Sénégal soit au-dessus de nos ambitions ay vues ay vues ay vues ay xaw ma ñëpp naan Maodo Maodo Maodo Maodo yow Maodo fa la nga war a dindi ci naa rien de Maodo

muy jaam simple bu doon jiite ay nit même ñaar nit yoo xamante nii da nga leen jiite woon yàlla da teg nga teg leen ñuy déglu nga leen di wax di leen sasal ay wax di leen ko tegal wallaahi azim yawmal qiyaamatul akbar yaa dina la ko laaj Ousmane Sonko jar na ko jaru ko jaru ko ça vaut pas la peine ba ma jàpp ne nitu diine nga booy wax danga war a wax ci diine bu paree nga noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw yasmut mais Maodo Faye

mi yéen ñëpp ngeen def jigéen bu bon bàyyi waa góor gi nga xam ne moo bàyyi jabaram ak ay doomam dem ci moom c'est pas mënul nekk sa c'est impossible yow nag mën naa wax ak yow parce jàpp naa ni ragal nga yàlla jàpp naa ni boo wéetee julli ñaar ràkk di nga xalaat di nga def du ma ñëwee ma nu wax ak ñoom koo xam dem nga ba ci télé waat ne Ousmane Sonko ti yor kaamil yàlla waat mais mujjee mooy. Yewwi Askan bi fu nekk lañ jaar campagne ne buñ duggee assemblée li ñuy njëkk dugal ci loi mooy loi contre l'homosexualité ministre de la justice romb na ministre de l'intérieur romb na seeni waxi bopp lañ fa wax lañ doon wax ci mbedd mi ci mbirum góor jigéen assemblée bi ñu ngi waaj a tëj déggoo leen ñu wax ko te ki ba lañ leen doon wax ci biti mooy non cumul de mandat lañ leen doon wax ci biti ne ñu duggee assemblée loi góor jigéen loolu da nga daan xaar ba assemblée bi tëj ma baaxe leen ko mooy assemblée tàmbali na ba ba ñu ngi jeexal ministre de l'intérieur jaar na fa ministre de la justice jaar na fa ministre yëpp jaar nañ fa déggoo leen ñoom ñi taxawoon ñoom Guy Marius naan go home ñoom ñi fa taxawoon ñëpp di wax ci góor jigéen ñoom ñëpp amul kenn ku dugal une loi pour mu durcir li nga xamante ni moom mooy mbirum góor jigéen donc lii mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko dégtal donc di leen sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax di yàlla yàlla yàlla def jàmm Sénégal yàlla yàlla def tawféex def xéewal donc nañuy waxtaan ci cause yi te bàyyi effet yi parce que cause bu amul rek effet yi du am sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah